ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi man la mareetu fii ci saveur planetaire macha allah fa seen dellusiwaat ak yéen mbokk yi niñ koy baaxoo di defee yéen fan yi euh, ci après tabaski bi lay yóbbu yaaba yéen ma leen gën a xam nee nañ leen il faut yëfi di woyof. ñu jël repos tuuti ci teew gi <laughs> ayo macha mbokk yi tey li ma leen indil mooy euh, sauce gribiche voilà sauce gribiche suñu mbokk français yi ñoo koy defar nga xam ne mën na remplacer mayonnaise mën nañu wax ne mayonnaise la boo xamante ne que euh, duñu ko defee ak euh, nen bu ñorul nen bu ñor lañ koy defaree voilà donc yóbbu yaaba yi ngay tëmbal ci mayonnaise bi yëpp da ko ci naan bàcc bu ko defee foofu daal di xalangu ñu defaral ko suñu benn salade de poisson froid bu gaaw noonu rek pour yokk coow li très bien sànni ci suñuy pomme de terre donc naan leen topp leen ma rek bu ñu taaxirloo ndànk rek incha allah tous les yóbbu yaaba la petit njafaan ba yegg si fii ma nga ci yoon way ñëw aywa. salaamaaleykum ah, très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi. gis ngeen ko nii bon nee naa leen tey France lañ jëm macha allah ñi nga xamante ne que dañu bëgg mayonnaise. te bëgguñu lekk nen bu ñorul bi maanaam jaune d'œuf bi nga xamante ne que ñiy mayonnaise euh, jaune d'œuf moom la ñuy utiliser am na beneen façon boo xamante ne soos gribiche la tudd moom it dafa xaw a jege mayonnaise voilà jege na mayonnaise à part que boobu au lieu jaune d'œuf euh, may mun a nes normal bi <laughs> jaune d'œuf bi nga xamante ne que kenn du ko togg bi moom da ngay baxal say nen gis nga ko nii boo ko baxalee ba pare nga génn jaune d'œuf bi écraser ko gis nga ba mu nekk nii donc lii la ñuy may mun a neesee tey voilà léegi su ko defee blanc d'œuf bi da nga koy daggati say coppati yu sew ruuj daal di ko tegee ne ci ruq voilà donc suñu yuubu yaaba euh, yi nga xamante ne moo fas yéene dem suñu sauce gribiche baa ngi nii nen bu ñu baxal la jaune beeg blanc bi ñu séparé ko macha allah gis ngeen fii suñu cornichon moo fi nekk cornichon yaa ngi nii dañ ko daggati morceau yu sew cop cop cop cop ku ko kiwul mën nga jël sa piikal Euh, ñi ngi fi ak suñu tuuti euh, purée d'ail am na ñoo xam ne duñ ko ci def mais man dama ko ci naan réel la macha allah vinaigre baa ngi nii cidre de pomme la apple de vinegar voilà kii moutarde dijon la lu tolloog euh, kudd bu ndaw bu fees voilà ci may mun a nees gi. kii nii suñu xorom la ak poivre bi muy xorom sec poobar sax lii suñu persil la jël haché ko ba mu tere bien fas yéene ko tegee ne ci ruq ba kii capre la. voilà capre bee nekk nii moom tam dañ koy cop cop cop cop euh, ba mu daal di sew tege ko ne ci ruq bi dañuy soxla diwlin bi nga xamante ne moom la ñu fas yéenee monter euh, suñu sauce gribiche bi voilà léegi su ko defee nag Euh, buñ ci paré li ñu boole ko ben salade de poisson froid parce en général français ñom sen euh, sauce gribiche bi dañ mënañ ko avec du poisson froid euh bu buñu euh, moussal ni ba mu ki nonu rek ak touti lori ak touti xorom ba mu saf ñu ci génn yax yi ko bam voilà li pomme de terre buma baxal la mom tam dag ko ni ay rondel bima koy baxal dama ci wis touti xorom xolli rondel ko mëngo li ni soble bi Euh, oignon confit la soble bu ma confit la incha allah moom tam recette am dina ñëw ci suñu euh, piikal yi donc soble bi dañ ko piikal donc lii dañ leen di tegee gum le incha allah su ko defee ñu ñëw euh, dóoral leen rapidement suñu sauce grubiche. bi xar leen ma waccel leen fi légui rek version française bi lakk dëkk bi wa télé bi. voilà donc rapidement euh, <laughs> comme d'habitude pour la version française alors euh, au menu ce soir je vous propose une sauce grubiche. sauce grubiche. et pour la sauce grubiche, on aura besoin de jaune d'œuf alors là j'en ai trois et pour le blanc d'œuf on coupe un petit morceau et on le met de côté. On aura, pour ce sauce, on aura besoin de cornichons que j'ai chop chop chop, un petit morceau aussi, du sel et du poivre. Ça, c'est de la moutarde Dijon, une cuillère. Et ça, euh, c'est des carpes que j'ai hachées. chop chop chop chop chop. Voilà. Et là, on a du persil haché aussi, chop chop chop. Et là, c'est de la purée d'ail, un tout petit peu. Et pour la sauce gribiche ce soir, Inch'Allah, on va euh, préparer une bonne salade euh, de euh, poisson froid avec de la pomme de terre que j'ai déjà bouillie aussi. Et le poisson, je l'ai déjà bouilli avec un peu d'ail, du sel et quelques feuilles de laurier. Voilà, et maintenant j'ai enlevé tous les, les arêtes et bien sûr on aura besoin euh, de euh, d'huile d'olive très bien mbokk yi macha allah bon ñu commencer, bal leen ma rek ma move caméra bi nous ñu légui euh suñu sauce gribiche bi voilà donc gis ngeen ni suñu blanc d'œuf euh, suñu jaune d'œuf bi plutôt dañu jël ni suñu moutarde bi dijon bi jaxase ko ci waaw ne ko ci réel mu ànd ak coow li ñu daal di jël ndank suñu vinaigre cidre de pomme bi mom tam ben cuillère la ne ko ci réel jël laaj bi mom tam moitié cuillère ne ci un tout petit peu de sel voilà et du poivre ñu def ci tout xorom ak pobal donc gis ngeen len ni ngeen gis fini. ki lañu ko ba mu fini. ba paré voilà ñu ci laal diwlin bi donc di wax fi délicat donc nañ ko ba voilà comme ça on mélange le tout tout tout jusqu'à ce que ça soit jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène et maintenant on commence à mettre le petit à petit diwlin bi par la ñuy def di yëngal muy ñuy di yëngal muy jël fourchette donc ko ni lañ koy rek di def comme mayonnaise rek ont diwlin yëngal ba voilà gis ngeen ko ni bu wé rek nga wat yëngal yëngal yëngal ba lepp jaxaso comme ni ngay may mu na nessé rek gis ngeen ko ni voilà donc pour ñi nga xam ne euh, bëgguñu mayonnaise ak euh, ki bu ñorul bi nen bu ñorul bi mën nañ ko def donc gis ngeen ni suñu sauce grubish bi voilà gis ngeen ko ni ndank rek man huile d'olive la utiliser mais kumu neex mën nga utiliser huile tournesol wala huile bu la neex gis ngeen ko ni dem ba yëf yi noo bëgg mu yem rek nga ko fa voilà léegi gis nga nii ma defaat nii rek mu doy voilà gis ngeen ko comme ni ngay may mu naa rek bu la neexee nga topp ko nii muy gën a dem di monter. waaw ay mu ngoog très bien léegi gis ngeen nii ñu ne ci réel nen bi yeneen ingrédients yi fi ne woon yëpp lañ ci naan teel gis nga kii ne ko ci tuy cornichon bi carpe bi jël persil bi ñu haché woon ne ko ci tuy. bo paré nak jaxassé mélanger mango gis ngén ko ni am nañ fi suñu benn sauce gribiche gis ngén ko ni ku mu neex nga bolé ko ndawal voilà ku mu neex nga boole ko sa bop xar ñom bop nak yi lañ koy gëna bolél <laughs> mais xam nga ñun bop xar dañ ci dem ba sori gis ngén ko ni suñu sauce gribiche ngi ni légui ñu ñëw nak défar suñu très bien machallah mbokk yi gis ngén na la suñu sauce bi pare na ñu ñëw dressé ni suñu assiette rek may ko benn dressage bu ndaw bu gaaw rek macha allah daal di tàllal ndànk ne le suñu euh, quelque feuilles de laitue gis nga ni jël ndànk suñu cherry tomato mooy béy bi tomaate njambali <laughs> mën na ko ci njambali daal di ko sànni ndànk waaw doxantu ndànk ba fii coppati ci suñu jën bi nga xamante ne que ki noonu nañ ko waaw kañ di jël ci suñu soble bi ñu confi woon. incha allah recette baa ngi ñëw sànni ko ci noonu tuuti rek moom it euh, dégg nga maam muy euh, dégg jàmm waaw kañ ko defee nag ñu ñoos ndank ni ci suñu pomme de terre bi ñu baxaloon voilà gis ngeen ko nii étaler leen mel leen ni benn kifin rek kañ wéttali assiette bi tuuti très bien mëngoo ko très bien merci beaucoup bu ko defee nag ñu daal di doxantu fi ndànk ba ci suñu soos gribiche bi tibb ci lu am maanaa ne ko réel li nii ci ruq si waaw kañ gis ngeen ko noonu mën nañu njoosaale tuuti sax bàcc ko nii ndànk rek tout tranquillement ci kaw pomme de terre bi waaw kañ voilà très bien bàyyi ko dégg nga maam mu may ñu benn peut wëndeelu mbay mbay ci wëndeelu mbay mbay bu suko ko fofu dal di toj mbokk yi ayo très bien machallah très bien machallah wala qote illa billah mbokk yi el rapidos ñam wu gaaw ngi ni mëna nek entrée comme mëna nek nekk liñ naan li yàq rer reer bo leel yëpp rek nako fu fet suñu sauce gribiche ngi france lañ leen tay bo le ko suñu ben salade de poisson euh, froid ak suñu yubiya ba yeena ma leen gëna xam woyof toyu la def waaw mbokk di wax nek tay Euh, dañu fas yéene doxantu ndànk ba euh, euh, fële Virginia daal di yekkal madame Thioune nag <laughs> ak monsieur Thioune yëpp koo koy Suzanne Niang rakk ndaw macha allah yaayu Daba Seck di ko wax ne fii la ñu génn ak yow tey benn njogona la ngi goo xam ne mën na yàq reer voilà donc fas yéene doxantuwaale ndànk ba Paris la France yekkal ci cousine nga kooku mooy. Baminata Koulibaly <laughs> ma ne ko ci kookoy Baminata Koulibaly macha allah sister sa couse waaw Suzanne ñaaw fa génne nee daal nañ la yekkal suñu sauce gribiche bi incha allah nga di ci bàyyi xel. très bien mën nga kon nag mbokk suñu yóbbu yaaba yaa ngi ni benn rak tak tak bu gaaw fi jaaroon rek. di leen wax ne lii lañ leen indiloon tey ji fii ci Saveurs Planétaires di leen ñaan la baaraamu kaw sela la wiccax mu yéeg la baaraamu suuf sela la fente foofa daal di toj très bien macha allah bu ko defee ñu ñoos ni ndànk ci huile d'olive bi waaw kañ may ko ci benn petit raay daal di nas na si merci beaucoup